Vamos vamos vamos Vamos ba sucesso vamos si CES ba may Matar ñëw taxaw seetaan ma si la pare woo ma mu doon grand bu baax moom ba may jàppale sax daanaka si ma ci dara ba ma gisee si ses moom mooy jàppale lu ma xewle moo ci jiitu moo tax ba ma woowee ne ma bëgg ñu liggéey ñu toog waxtaan liggéey quoi mu doon grand bu baax liggéey bi maa ngi siy gis sama bopp bu baax a baax ndax ndax ndax seetaanuñu si dara ndax mënoon na ne ñi dama si ak moom dama signé ñoom rek ci musique laa yem ak ñoom wala dara mais loo xewle moo ci moo si njëkk ndax fan yee gisoon nañu ay musiciens yu génn yoo xam ne si biir label bi lan bokk mhm. defoon sax ay interview di di di wax nañ ko ñoom seen way dañoo génnee seen way ba pare ñoom ñoo bind seen way ehm, label bi jël ko def ko melam di ko di ko di di si liggéey te ñoom ñoo moom way bi ba mucc ba ñoom ñu quitté label bi ñooñu ko label bi gisaguma ko fa quitté de mm. mais nag ah comme est ce que bokkoon na fa sax mm. kan tudd turam boobu kooku sama maa def def moom naa. bon label bi moom wax dëgg yàlla. ñii ñu def seen seen musique ñu def seen clip def seen def ba pare nee nañu woy boobu moom dañ ko jël jox ko keneen keneen mënu ko jël. mënu ko jox mu jox nañ woy bi Sidi Diop jox. ah ko utiliser ko xarit la sama xarit la. dëgg yàlla jël utiliser ko non sayt sayt ñëwoon rek mais instant bi jàmm ñëw na ndax mu ngi déggante ak man. mu ngi dégganteeg waa suba teel di waxtaan ak ñoom. nekk si jàmm parce que moom si label si si si ZBS la nekkoon. dellusiwaat na. waaw non dellusiwaat na dellusiwaatul comprendre moom si label ZBS la nekkoon te ZBS moom ni muy liggéey mooy. am na ay morceaux yoo xam ne tey jii am na ay nit yu ko génne man maa ñëw tegal ko témoin damay ñëw mu ne ma naa ñëw bu fekkee defoo dara tegal ma témoin lii ma woyal ko loolu noonu mais après man damay am son bi mais son boobu moom après mën na ko jël jox ko keneen parce que moom mooy créé moom mooy créé test bi moom mën naa leen waxal lii waaye lii waaye lii donc xam nga kon moom moom morceau bi mais des fois da nga ñëw teg témoin morceau bi neex la mu ne la jëlal mais des fois mu ngi ko tegal témoin morceau bi neex la mu ne la non du ma la ko jox dama am keneen ku ma ko jox ku ma ko doon liggéeyal Youssou Dior noonu la am na son yoo xam ne tey jii sii di mun naa ñëw fekk mu tegal ma tegal mooy man damay ñëw rek jaaraat ci waay am na son yoo xam ne mun naa ñëw tegal sii di tegal mooy mu jaaraat ci comme noonu la rek mm. seytaane ñëwoon xam naa ak affaire xale rek